ko yàgg ràññee ci taxawaayam ci dëkk bu sell bi di Touba ak lépp lu koy jëme kanam association Nourou ni Touba ci kanam di gën di fésal xar kanamam jaare ko ci commission environnement doon bànqaas bi yore wàllu gàncax gi amal liggéey bu am solo ay pépinière doon ay njëmbat yu jàppandal nanu ko ngir dëkk bi lu ko naatal pépinière yi ëpp ñaar fukki junni ñu ngi ko def ci kër gol ginnaaw bu ñu ko saytoo toppatoo ko ba mu jàppandi dalloo nanu ko ci teewaayu kilifa yu takku sëriñ Moustapha Amar moom mooy jiite commission environnement bu association Nourou nii Touba ci kanam. di gërëm la commission environnement ndax lii day feeñal ne commission bi ñu ngi liggéey ci travail d'équipe di jaajëfal ki nga xam ne mooy suñu vice président muy Serigne Cheikh mu topp ci ñun te topp nu toppin wu rafet taayalul ci dara. ba bëccëg bi ngi ci liggéey bi ba tax lu bari lu ma waral def woyof na ci man ndax seen Cheikh Kane kon seen ñu ngi koy gërëm di gërëm structuration bi mooy le secrétaire de la commission muy seen Cheikh Cissé nekkaat ku jiitee la sous commission reboisement gërëm Serigne Abo Ndiaye mi nga xam ne moo yor wàllu nettoiement ndax ku wax environnement wax mbalit te mi ngi ciy liggéey liggéey bu am solo bu kawe njort waaye di gërëm Serigne Modou Dieng mi nga xam ne moom moo jiite sous commission assainissement. lii nag nga xam ne taxawal nañ ko objectif bi lenn képp la mooy kuy wax reboisement da nga war a fexe am production mënoo dëkk ci jéggaani ak di jëndi mais foog nga teg source de production buy tax li nga yéene ci dëkk bi nga mën koo jotal kon suñ demee ba taxawal lii c'est grâce à Touba ca kanam ko ñu koy remercier davantage di remercier partenaires yi nga xam ne accompagné nañ ñu ku ci mel ne eaux et forêt ku ci mel ne privé ku ci mel ne Touba vert Souley Kitaan di gërëm ingénieur en agronomie yi nga xam ne dañoo ñëw indi seen i xam-xam fa seen adhéré wu ci liggéey bi te xam ne liggéey bi liggéeyal Serigne Touba la seentu asamaan amul buuxante képp ku ci am yéene rek xaj nga ci kon bunt bi ibbeeku na pour képp koo xam ne sa xam-xam màcc na jëm ci wàllu environnement la porte est grandement ouverte. liggéey bu mu caayib ñu teg ko ci loxo yu wóor ñu seen xam-xam màcc lool mu doon ci wàllum garab ñu def ko ci anam bu sell. Baye Cheikh Cissé moom moo jiite woon projet bii. dañoo dikkoon Touba ca kanam xalaat ne euh, chaque fois dañuy manqué ay garab ñu leen ciy dimbali te dañu ne nag ndimbal da fekk loxo borom moo tax ñu créé pépinière bi wut ay pépiniéristes formé leen juróom benn weer lañu leen formé ci wàllu euh, saytu ay garab mooy production végétale defe naa li ñu leen formé gis ngeen ko ci terrain bi. lépp loo xam ne formé lañ te wane nañ ko tey mu mën mu wane ne xam nañu liggéey bi mën nañ ko la ca des muy wàllu maraîchage gis ngeen maraîchage bi aussi dañ cee sàkku ay formation ñu defal leen ko kon loolu tey bu ëllëgee lu Touba ci kanam soxla ci plantation am na personnel boo xam ne formé leen ñoom ñooy saytu loola ci kaw loolu nag li tax pépinière bi jóg mooy jëmbat garab ci Touba toujours mooy wax un déséquilibre écologique ci biir Touba amut vraiment benn programme boo xam ne reboisement la euh, boo xam ne ñëpp ci war a bokk amu fi ñoom Touba ci kanam créé ko nag léegi pour population yi garab yii nag ñu defar vingt-deux mille plans la muy ñaar fukki junni garab ak ñaari junni ci garab yi joxe ker ji di lu am solo lool kilifay Touba ca kanam am ca lool mbégte Serigne Abdoul Fatah Guèye mi jiite association Nourou ni Touba ca kanam delsi ci solo gu liggéey bi am na ko waaye ci yokk ci ne am na yaakaar ne lii bokk na ci liy gën a jëmale dëkk bi ca kanam waaye tam gën a jàppandal nekkinu askan wi rawatina jigéen ñi. pépinière bi nga xam ne taxawal nañ ko fii nag ne ko commission environnement bu Touba ca kanam ci njiital sëñ Moustapha Amar. ak Serigne Cheikh Kane mi toftalu ci moom Baye Cheikh Cissé mi nga xam ne xam-xamam daa màcc jëm ci wàllu googu ak Serigne Moustapha Cissé mi ngi ko àndal ak waa gox bi taxawal nañ fi pépinière bu am solo boo xam ne fi mu ne mënees na ko wane mënees na ca teg bët. luy tolloog 22000 garab jëmbat nañ ko fi ñaar fukki junniy garab ak ñaar barki dem bi ñu demee ci sëñ Mountakha di ko leeral liggéeyu Touba ca kanam leeral nañ ko ko. ñaar fukki junniy garab ak ñaar nag bu yàlla bu ñu yàlla dimbalee bañ tasaare ko ci biir dëkk bi dana doon lu am solo tey pépinière du taxaw ndax garab gu màgg ba àgg ci ñu war koo jëmbat boo ko génnee da fay defaat geneen bu ko defee muy dox ndax dafa bokk ci lii dimbali doomu aadama mooy environnement bu baax te environnement boo ko waxee garab a ci njëkk li tubaab yi wooye écosystème te mooy yii suñu borom composé ci kaw suuf ngir ñu ñu mën a ñoŋal dunduk suuf gi yooyee garab da cee bokk doon ci bànqaas bu ama am solo ndax ndox ak wëlbatikoom soppaxndikoom cycle de l'eau garab da ci am liggéey bu am solo bu ciy def oxygène garab dafa am liggéey bu am solo bu mu ciy def waaye climat bi wér gu yaramu doomu aadama yi garab dafa am liggéey bu ama am solo bu mu ciy def ba ci xayawaan naan yi te mooy euh, ndundat yi rabi àll yi picc yi yooyu yëpp garab daf leen di dimbali ba seen yu nekkin mën a am ndax bari na fi mu ne fi jamono toll ñuy wax ne xeeti mbindeef yu baree bari léegi faagaagalu nañ maanaam disparaître nañ yenn ñi ngi en voie de disparition li ko sabab déforestation yu métti yi nga xam ne moo am ci àdduna bi loolu moo sabab léegi rab yu baree baree bari di dem te rab yooyu seenu dund dafa lëkkaloo ak dundub doomu aadama loolu moo taxoon Cheikh Mouhamadul taxaa joxe woon ndigal jaare woon ko ci sëñ Abibu ci ne ku ko man na nga jëmbat ak garab ñaari garab ñetti garab lim boo man sa buntu kër bu ko ñëpp maasee def liñ bëgg dana am donte nag fii ci dëkk bi am na ay gisiin yoo xam ne am nañ ko ci garab ñenn ñi dañ naan day lëndëmal ñenn ñi di wax ne day indi ay yoo ñenn ñi di wax leneen ak leneen sëñ Mouhamadou Lamine Mbacke xam-xamam màcc jëm ci wàllu garab dama ko mas a dégg moo wax ne diggante garab ak yoo amuñu benn lëkkaloo ndax yoo du nen ci garab du fa dëkk kon lu tax nit ñi bëgg a def ci bopp yi ne garab fu mu bari yoo dafay bari loolu lu lu ñu xalaat rek waaye du lu taxaw kon yooyu yëpp dafa mat a bàyyi xel njariñ li garab mën a indi léeg-léeg dem ci ñi nga xam ne yàlla dogal féete ci sancaan yi nga xam ne ci dëkkuwaay yi gën a sori ci dëkk bi la dëkk da dem ci kër goo xam ne da nga naan kër gii de benn garab gu mag bu nekkoon ci digg kër gi rek waa gi dañuy am jàmm dañuy am fu ñu féexloo am fu ñu mën a añee dañuy am fu am dañuy am te te léeg-léeg dafay manqué kon yooyu dafa bokk ci liggéeyu Touba ca kanam ñu ciy jaajëfal mboolem ñi nga xam ne jàpp nañ ci ba ñu samp fi taxawal fi wana fi loo xam ne mën naa doon départ. pépinière doon jëmbat yi ñu doon dalloo ci kër gol laataay ñuy dem ca bërëb ba nemmeeku nañu garab yi ñu ci xàll wi dox ci diggante Mbàkke ak Touba te ci fàttali Serigne Mountakha moom Serigne Bassirou moo dooroon jëmbat la. association Nuuru ni Touba ci kanam jaare ko ci commission environnement tàgget nañu lim bu takku ci ay ndaw ci lu jëm ci wàllu garab. ak li ci aju ginnaaw bu ñu wane ak xereñteef ci liñ leen tàgget ci tëccal ndaje mi ñu doon dallu pépinière yi jébbal nañ leen ay lijaasa yuy màndargaal li ñu fi jot jàng di fàttali ni njëmbat yi asociation Nuuru Daare ni Touba ci kanam jaare ko ci commission environnement dañu ko bëgg a tasaare ci dëkk bi ba fépp mën naat lii mu doon njëriñ lu ni wi maaso rafetlu di gën di màndargaal ak firndeel taxawaayub association Nuuru Daare ni Touba ca kanam laaj lu nu mën def ko fu ñu xam wajali